BFM 2021 ñu tàmbali ko ci altiné 9 août 2021 fi nga xamanteni mom modi ci territoire national ci seen imam Mbaye Sèye bu Ross jury unique mom moo fa am mu nek nak ñaari témèr ak fanwer ak benn candidat yo xamanteni ñom ñoom ñoo fay jongante ñett nag ñoom ñoo ca teewul lolé nak di ki kaddu ki nga xamanteni mom modi Omar Fall jité jury boobule waaw ñu première épreuve bi tey ñoo ngi koy déroulé donc présentement ñoo ngi si TSQ bi donc am na épreuve euh, rédaction bu ñu déroulé ce matin donc fi mu nekk nii ñoo ngi si épreuve TSQ bi ganaaw ba dictée bi jàllee donc fii centre la ba nga xam ni centre bu regroupé 231 candidats la loolu buñ ñu ko waxee mooy ñaari téeméer ak fanweer ak benn ñoom ñoo fi composé donc si euh, loolu am na ñett absence yu ñu noté am na ñaari jigéen ak benn góor bu absenté ah, donc euh, présentement, on peut dire qu'il y a 228 candidats qui sont en train de composer. Donc moi, ñaari téeméer ak euh, ñaar fukk donc Fimounakini, mu tout se passe bien les autorités il y a la gendarmerie ma assurer la sécurité donc autorités aussi le sous-préfet passé donc euh, il y a l'ICD qui est passé aussi donc présentement il n'y a pas de, problème que tout se passe bien. waaye nag ca beneen jury ba nga xamante ni moom moo nekkee fële ca Ndiaye Ndiungu Mberes foofu lu tollook téeméer ak juróom-benn fukki candidat ñoom ñoo fa doon jongante mu am nag kenn koo xamante ne teewu ca tamit ca la nga xamante ni moom moo di ci wàllu surveillance bi tamit am ci kenn koo xamante ni moom it ca ka nga xamante ni moom moo di Modou Mbaye moom moo jiite jury boobule. di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin commencé nañ ko ci jàmm. ñu ngi ñaan yàlla aussi égalé ko ci jàmm vraiment au niveau de Ndiaye ñëw nañ fi depuis démb def nañ visite de centre donc apparemment amul benn difficulté surveillant yi teel nañ ñëw secrétariat bi aussi ñu ci convoqué ñëw nañ élèves yi aussi répondre nañ massivement donc si centre Ndiaye bu Beres 160 candidats lañ amoon donc 96 yi jigéen lañu woon 64 yi ay góor lañu noté nañ ci nag benn absent par rapport au nombre de surveillants 21 lañ convoqué woon 20 yi ñoo ñëw donc benn absent aussi am na ci foofu mu di nag examen boo xamante ni ñi ngi koy def ci jamonoy mbas lenn lox nekk ñu jël ko ci wàllu li nga xamante ni moom moo di protocole sanitaire ngir mbir mi mën a jaaree yoon rawatina nag takku masque yi ki nga xamante ni moom moo di Oumar Fall jiite jury bu Ross Béthio moom moo ciy dellu siwaat non loolu il faut que loolu moom c'est une obligation sur institution des autorités vraiment les mesures donc sont respectées ici donc il y a le port de masque qui est obligatoire donc euh, masque il ñëpp ko war porter aussi bien donc euh, ñuy surveiller corriger que élèves donc lolo dafa nekk une obligation donc euh, ñong ngi si veillé bu baax a baax a baax. waaw fii moom alhamdulilah ñu koy respecté bu baax a baax parce que tey actualité bi yëpp pour mbas mi la mbas mi la ci la ñëpp di wax parce que dafa dem sax ba daanaka xel yëpp jaaxal na ñëpp daal mais ak lu mu ci mun di doon tamit ñu xam ni yàlla moo ko fi wàcce rek di ko ñaan moom aussi mi nga xamante ni moo ko fi wàccee mu jëleel nu ko fi. te am nañ ci yaakaar bu réwér ndax ay jullit lañ te ñaan la ñu am te yaakaar na ni ñaan boobu aussi dinañu permettre tey mbas bi ñu fi wax ñu jóge fi di leen ñaaxaat rek encore une fois aussi ñu nekk gën ko respecté parce que comme aussi dañ leen ko digal médecins yi ñoo ko digle donc ku ci ne li nga ci mën rek nga def ko ci ñun aussi duñ leen ko permettre tey pour nga dugg ci école bi il faut que ñu vérifier la est-ce yi takk nga ko est respect bi amna ak tout et même au niveau des salles sax de temps en temps aussi dañuy jaar pour vérifier est-ce que élèves yi effectivement ñu ngi respecté mesures barrières yi. bu nu sukkandikoo nak ci examen yi nga xamantene ñom ñoo jiitu won te it mu doon baccalauréat ñu némé ko ci biir réew Sénégal tricherie bari woon na lool loolee nag ñi nga xamantene ñom ñoo nekké ci jury yoyé nga xamantene mo nekké nekkee Ndiaye Ndioungu ak Ross Béthio ñaari président jury yooyu ña ngay xamlé rek ni jël nañu matuwa yi te it sensibiliser nañu bu baax ndongo yi ci walu wi. yi. waaw xam nga gouverner de se prévoir parce que tubaab yi ñooy wax loolu maanaam tey moom ñun démarré nañ tey suñu examen actualité bi yëpp moo nekkoon tricherie au niveau du bac et que li ma ko waxee sànq ci nasaraan rek war nañ ñaax élèves yi gëmloo leen aussi ni nit ki li ngay am da nga ko war a mérito du tricherie mooy tax nga am diplôme wala diplôme bi même boo ko amee tricherie ëllëg lam lay jëriñ du bari te réussir defe naa ne li nga xam ne da nga ko ñàkk kenn jàppale la si te nga gañeel ko sa bopp dafay ci nit ki te ce fait aussi dañ leen di gëmloo rek ni àdduna li nga war a am rek ngay am mais nag def ko ni nga ko war a defee ba nga xamante ni suba boo tasee nit ki doo doo yooyu moom ñaax nañ leen ci parce que avant démarrage yu épreuve aussi def nañ tour de classe wax leen li nga xamante ni moom la examen di nangu ak li muy bañ li nga xamante nii bu ñu ko defee mun na leen ci fekk comme sanction donc notamment portable yi nga xamante ni kenn waru ko fi duggee ak lépp lu jëm daal ci xeetu njur wuñ jaaja waruñ boo xam ne daal waru ci am loolu moom rappelé na leen ko te ñu ngi leen koy gën a ñaaxaat aussi te yaakaar na ni aussi ñu ngi ñaan yàlla ni duñ ci am kaa waaw. waaw dëgg la dëgg la waaw tricherie moom dafa nekk li nga xam ne daal lu xaw a lu ñu remarqué la mais fii jël nun disposition yi donc à l'avance wax ak élèves yi waaw gën leen xamal ni loolu lu ni bannir la donc euh, et li nga xam ne mooy portable ak euh, bagage yu jege euh, disposition ba nga xam donc euh, toute éventualité de tricherie a été écartée donc fi mu jusqu'à cette heure-ci donc il y a pas de tricherie et on met ni souhaite donc que mu continuer dans cette dans cette wàllu nak association des parents d'élèves ñomit sen taxaway leron fa lol ki nga xamanteni nak mom modi Diop jité APE bu Ndiaye njungu Mberees mom ma ngay jaajëfal teewaayu ki nga monsieur Koné di adjoint sous préfet bu Ross Béthio ak ki nga xamanteni nak mom modi Diop di coordonnateur ci li nga xamanteni organisation BFM bobu léegi lata nak muy ci siwaat ci kilifa yi nga xamanteni ñom ñoo loxo ci mbir mi bu baax li jàpp moo di di leen gërëm di leen sant di leen leeralat ni lii ngeen def defuñu lu dul kontaan ci ndax peccum liir bu baaxee ndey jaatee ca mbaggama moom maire bi mu ñëwee dafa ne na lu bon bon sax euh, jama ak fii mat na dix kilomètres wala huit waaye Abdou Ngay Mbooj mi nga xam ne moo topp ci nun ci moom mu jël lépp teg ci loxoom sanu dara manqué wul bu nu nee bëreet mu tàmbalee li ko tàmbalee njool ba ba ngaa dem sawañ ba ba ngaa dem ci leen dana nu jax ñaari oto oto jógee njool oto jógee ci leen ñu indi xale yi sept heures du matin balaa huit heures te dem di gërëm ñi nga xam ne ñooy partenaires yi li ko dalee Sokaas ba ci Birane Boy mi nga xam ne mooy directeur société am ak ñoom Bas ñoom Abdou Fall ñi nga xam ne daal ñëpp tax euh, war nañu taxaw ci ñoom ku nu taxaw ci ñoom rek jàppale nga nu xam ne bés bi bisu ñëpp la bésu takk gañ la bésu takk jukka la te li nu cee liggéey mooy nu jàppale leen ñu jàppale nu am 100 pour cent. waaye nag ca Ross Béthio moom it ka teewal association parents d'élèves yi moom moo di Amadou Gaye moom it ma ngay dellu siwaat ci organisation wu li nga xamante ni moom moo di examen yi i eh, Umar nga permettre ma rek ginaa bu ma sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam ñu rendre hommage euh, Allah subhanahu wa taala bi ñu may kàttan c'était pas facile ku ne xam ne c'était pas facile yàlla dimbali ñu ak gouvernement Sénégal ba tey si tey ñu ngi ci épreuve bu euh, examen BFEM bi kon ci wàll organisation en tant que parent donc euh, ñu ngi taxaw en tant que parent lépp lu nga xamante ni jëm na ci préparation disposition salle préparation nettoyage salle préparation recevoir euh, correcteurs yi héberger leen euh, jox leen ñu mën mettre ci conditions yi nga xamante ni vraiment dina fekk ñu mën a liggéey ci jàmm. gis nañu ni élèves yu bëree ñëw nañu sans masque mais fekk na ñun jël nañu disposition par rapport ak loolu élève bu nga xamante ni masque aussi ñu jox la masque permettre la nga mën dérouler say épreuves normalement mais ma profité de lancer parents yi comme ci kër yi la ñuy fait ci feebar bi fu fagaru moo gën faju mooy que ni képp ku nga xamante ni ngi génn sa kër en tant que parent na vérifier domam ndax amna na masque su vérifier doomam ndax am na masque balaa muy ñëw ci mu porte mu mu sol masque bi ah su leer euh, su leer Amadou Bekay Diop ñu ngi ñaanal yàlla ya fa mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge su leer aussi ma Diop vraiment woo naa ko parce que envoyé nañu benn enveloppe 100000. mu nekk fierté mu nekk kontante woo naa ko en tant que président bu gérer intérim mu Ndiassé Dieye euh, remercier ko au nom de tous les parents d'élèves de la commune collège Imam Mbaye Sèye de Ross Béthio Omar ñu ngi lay sant bu baax di gërëm aussi vraiment ci message bi ñuy lancé waat rek mooy que ni élèves nañu teel a ndékki teel a añ mën a ñëw dellusi waaw je crois préparé nañu président jury bureau pour ses secrétaires. jox naa ko sama bureau ak sama machine ak pour moom bureau personnel avec son secrétaire euh, rapproché ñu ngi liggéey euh, de mettre ko à l'aise aussi pour sécuriser ay épreuves am tout tout ce qui a comme matériel donc euh, vraiment defal nañ ko lépp lu nga xam ni la pour qu'il déroule dans de bonnes conditions maintenant. commençons par le maire de la commune de Diama monsieur Elage bi nga xamante ni vraiment euh, njëkk na nekk kilifa bu jàpp ci li nga xamante ni mooy organisation bi parce que il se trouve que chaque année dañuy am difficulté financière par rapport ak organisation bañ ka ko waxee nag si saa si la yëkkati li nga xam ni am na ko muy benn enveloppe bu dëgër wax dëgg yàlla jagleel ko li nga xam ni ñoom ñoo yore comité ñoo nekk ci comité d'organisation bi. biñ ci jógee aussi am na fi ñoo xamante ni vraiment monsieur Mamadou Diouf Thioy euh, PDG tak gagne info wax deug yalla mom tamit def na loxom ci mbir bi euh, euh, la socas def nañ ci sen loxo serik biran Boy vraiment japp nañ ci wax deug yalla basfal la Sayet aussi ñom ñep vraiment def nañu sen loxo ci li nga xamanteni mom moy journée bi monsieur mbay Diop directeur il est de Njungu Mberes mom tamit japp na ci wax deug yalla Abdou Salam Diop transporteur vraiment à chaque fois daf ni accompagner surtout si li nga xamanteni mo jëm ci donc euh, euh, Abdou Gaye aussi l'adjoint au maire de la commune de Diama wax deug mentionné mom mention lañ koy parce que wax deug yalla gis nañu ni si zone tak gañ la dëkk na yi vraiment ay njabotam lañu parce que commencé nako ci BFM bi euh, ci bac plutôt si entré en sixième ba tey ñu nekk ci bfm donc loolu nekk na loo xam ne vraiment dañ koy rafetlu di woo itam ñeneen ñi nga xam ne tamit vraiment dañu bokk ci biir gox bi bokk plus particulièrement ci zone tàkk gañ dañu war a ñëw fekk si ñi nga xamante ni ñooy association des parents d'élèves ak comité d'organisation bi yor wàllu bfm fii. nu mu ko waxee léegi rek di ñaan ñu ni déglu ñi parents d'élèves ni ñaanal élèves yi di wax élèves aussi ni gëna concentré wu si épreuve yi donc xam ni euh, y a que le travail qui paye donc il doit rester serein et se concentrer et répondre euh, objectivement et correctement aux questions qui leur seront posées. waaw xanaa santaat yàlla rek li ci yonante bi di len sant yoo si di len gërem ndax ñaari année gi nii yu tegaloo daw may won Ross ci ren yalla def na fi la ñëw. donc ñuy continuer di leen ñaanal pour que aussi li ngeen bëgg seen organe de presse yàlla may leen ko ba ngeen egg ko fu bu ngeen egg fu kawee seen jort loolu daal ñu ngi koy fas ci suñu xol di leen ko ñaanal waaw di gërëm Serigne Touba wér a wér na